jaajëfal nañ leen suñu mbokk internet yu 5M TV Sénégal ñu dikk rek eh, wax addu jëm ci jàngat bu yaatu bi nga xam ni journaliste bi di Pape Alé Niang daal koy def nag jagleel ko justice Sénégal mu wax ni nag justice nag moom ab société démocratique la justice la ko ëmb rek bokk na ci lu jëm ci wàllu nag société bu démocratique waaye société boo xam ne itam dalay rek garantir sa égalité jëm ci sa àq ak sa yelleef waaye itam gën la ko sàmm amal jëm itam ci askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk lépp loo xam ne am nañ ko ci wàllu nag ay daan ya ñuy teg seen kawaay itam di leen sax mettital jëm ci loi boobee yoon may na la ngir nga daal di koy xool ba tey ci wàllu société démocratique yoon itam daal di na lay may nga demal sa bopp jëm ci pouvoir politique ak économique yépp tamit kenn rekk du la ko xoolal yow moomee yaa koy gëstu rek ba xoolal ko sa bopp jàppale na itam nga xool ci wàllu tribunaux yi rawatina ndogal yi nga xam ne ñoo ngi koy daal jël ndax ña ngay wax ni yi leen ndogal dafa a jaar yoon waruñu xool rek kumba am ndey wala kumba amul ndey loolee itam jëm ci wàllu intérêt yi nga xam ni dinañ ko mën a teg leneen li bokk na ci justice bi war na la mën a dimbale ci nit ku nekk nag ci li mu war a mënti doon rawatina ci sa wàllu eh, dignité ak bénéfice maanaam la xam ni di nga ko amaat jëm ci procès yi ñuy def mu nekk nag procès bu jaar yoon boo xam ni dem na ak sa àq ak sa yelleef rawatina ci buñ lay nag dimbali ci wàllu justice dina la dimbali itam ci boo nekkee victime de crime maanaam rek loo xam ne dañ la ko jiiñ mu nekk lu metti loolu dem ba faat nit sax nag moom mu xoolal la rawatina nag ci auteur maanaam ñi nga xam ni ñoom ñoo def lu nu mel loole itam yoon may na la ko ngir nga xoolaat ko bu baax a baax ba ñu dem rekk ba sentantal ni yow mii yaa daal def crime bile kon dañ la koy toppee ba tey ci justice moomee la muy def rek mooy daal di rek maintenir mooy stabilité dal gi waaye tamit àndandoo bi ba ci nag liggéey bu am solo bi nga xam ni wàllu nag institution démocratique dina ko def loolee yëpp day ëmb rek ci daal di biral suñu àq ak suñu yelleef ak lépp loo xam ne ab liberté bu ñu am la ci askan wi war nañ ko mën a def maanaam rek suñu bëggee wax dara ñu daal di koy wax te dara rek du leen ci fekk waaye mel ni nag yéen nag yéen fi des bés rek pour mën a nag fësal li nu mel ndax gis nañu lii yëpp ñu lim ci wàllu justice nag moom amul fii ci Sénégal ndax rôle bi nga xam ne rek waroon na ko joué may ñu ko benn yoon rek suñu justice démocratique bile daal di koy am fii ci réew mi.